parti pour reconnaître sa défaite face à Bassirou Diomaye Faye, l'ancien candidat à la présidentielle est devenu aphone. Mais ce 4 avril, journée marquant notre accession à la souveraineté nationale, l'ancien Premier ministre via un réseau social. bañ koy mujjee dégg moo di ba mu génnee ngir nangu ni Bassirou Diomaye Faye daal dina koy daan wante démb yem ak ñeenti fan ci weeru avril ñu doon màggal sunu indépendance ki fi nekkoon élément jawriñ yi ci xaralul yees yi ñu daal di ko ciy dégg. ci ndorteel gi dafa ñëw ngir rek daal di jaajëfal sénégalais yi yemu fa nag mooy tàccu ni Sénégal wone na ni démocratie mbër la ci. mu daal di ci porox ndoolu itam daal di sant président de la république Macky Sall moom nag mi tax ba mu daal di samp ndëndam ci njàppandoolu benn bokk yaakaar wante nag xel nanguwul benn yoon mu bañ a bokk ci kujje politique bi mu nar kaa def nag ci anam yi gën. ñetti électeurs yoo jël benn ba ànd nag projet bi le loo xamante ne nag dañu ko war a gën a dëgëral aar ko ndaxte ndëgër lay la ci li nga xamante ne ni war nañ ci mën a wéyal suñu jëf waaye tamit ñu yaatal ko loolee di fësal ni nag eh, ki fi nekkoon eh, mbëru Macky Sall di fësal fi mu bëgg a jëmi ngir doon njiitalu réew moom nag muy xam ne nii eh, dogu na ngir Sénégal di woy di am jàmm ak salaam itam ak jàppalante li ni mel nag lay sàkku ci républicain yi ak démocrate yi mu mel ni nag defet bi romb na amadu Ba di ñaanal njiitalu réew mi Bassirou Diomaye Faye yéen gi woyof ci moom